pour la paix le développement APD euh, bokk ci coalition euh, Benno Bokk Yaakaar maanaam mouvance présidentielle euh, monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. xaadar maa ngi lay nuyu di nuyu sa auditeur u mi FM. te di kontaan ci li ngeen may invité pour ñu ma waxtaan ci problème mu réew mi. waaw ñu yokk si tamit yow yaay président conseil d'administration bu SENTER waxtaan wi ñu daal di koy doore ak li nga xam ne tey mooy visite bi njiitul union africaine di président Macky Sall euh, def fi nga xam ne tey moom mooy ca Moscou ca ca ca Poutine euh, la ko fa yóbbu nag bokk na ci euh, fexe ba jafe-jafe yi am diggante Russie ak Ukraine daal di jeex visite boobu yow lan moo ci sa xalaat. xam nga yow xaw ma woon lu tax ngeen invité ma mais question bi nga ma posé da nga fekk ma bind ci sax ci Facebook booba président Macky Sall xaw moo ni dina dem oubien du dem. mais visite bi bokk na ci loo xam ne lii sénégalais yi ak africains yi ñoom ñëpp ñoo ko war a saluer xam nga lu tax xam nga au moment où Europe Amérique di xeex ak le bloc soviétique léegi Afrique ci boppam au lieu que mu war toujours di toog mel ni ku bokkul ci monde bi dafa war di anticiper di jouer rôle am parce que Afrique da dul bu ndaw Afrique c'est un grand continent Afrique dafa am passé sur le plan de la science ak sur le plan des hommes qui ont fait ce monde Afrique daf cee am place bu mag sooy tudd ay boroom xam-xam yaa ngi tudd képp koo xam ne ki ñu ngi lay tudd ci affaire xam-xam ci àddina bi rek Afrique gii nga saxee ko Égypte nga jóge ñu jaar fii ay ñoom Serigne Touba jaar fi def ci àddina lu kenn deful ñu jaar fi am de grands savants tel que Cheikh Anta am fi des hommes politique yoo xam ne dañoo rayonné de par le monde commencé ko depuis ay Lamine Gueye ay Blaise Diagne ay Senghor jaar ko ci ay Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall mii on a de grands présidents. muy benn li ma bëgg a wax foofu mooy Afrique dafa am ay ressources humaines de qualité. Sénégal am ay ressources humaines une grande puissance ci ressources humaines de façon particulière. mais est-ce que feeñul feeñ ci développement. léegi léegi bu ñu demee ba Afrique ñële di xeex dugg ci benn guerre boo xam ni xamuñu naka lay jeexee te ku ci nekk ñéeg nga ci biir guerre ba nuy jël ay millions ay milliards ak ay armes di ko joxe pour ñu rey doomu aadama léegi Afrique bokkul ci continent boobu yàlla may ko mu am possibilité jóg jouer le rôle d'intermédiation. pour dem wax leen ñoom ñiy joxe armes yi ak di joxe xaalis bi ñu wax leen ne yéen ukrainien bu dee yéen ko rey dem ca ci Russie ne ko yow itam yow yaa toog di pénaliser le monde ce qui li ngay def Ukraine yamul Ukraine yaa nga koy yóbbu ba Sénégal yaa ngi koy yóbbu coin yi gën a reculer parce que yaa ngay affamer ay nit yaa ngay yokk pouvoir d'achat yaa ngi faat ay bakkan ci loo xam ne mënuñ koo def ci table de négociation wax Biden ne ko na bàyyi di financer ñuy rey doomu Ukraine yi wax ko na bàyyi mënta fe mënta mënta mënta far Union soviétique parce que réew moo xam ne dafa nekk une grande puissance une grande dictature gis nga mënoo koo affamer mënoo koo tiital parce que population ya la lay nangu li population yeneen grande démocratie yi di nangu Russie mënuñu ko étrangler parce que loo ko teg ay population bi dinañ ko nangu parce que population yi dañu nekk ci état de soumission ak am état collé wu ci seen leader li ngay def Ukraine ci boppam yaa ngi joxe xaalis ak ay armes mais Ukraine presque détruire nañ ko. yow ko jàpp ne moo tooñ. ki jàpp defal naa xam nga ki jàpp ne moo tooñ mooy waa OTAN waa Europe ak Amérique ñoo tooñ mën na mel nu mu mën di mel nekk dictateur di primer di def lu nekk mais li muy défendre ci biir yoon mooy le bloc russe gars yi waruñu faa dugg di fa dugal OTAN ñuy nekk di menacer la sécurité de la de de de la Russie loolu la bañ bañul ukrainien yi dafa bañ ñu utiliser Ukraine pour di ko xooxtal ak di ko jàkku moo tax muy def résistance. d'accord monsieur le ministre euh, ci visitu euh, njiitul Union africaine. est-ce que Afrique. Mm-hmm. nekk na continent continent bu crédible aux yeux des européens maanaam tey nekk na continent boo xam ne tey dinañ ko jox gëddaam ci ci médiation bi ak tey lu Union européenne mënul régler est-ce que Union africaine mën na ko lijjanti. mais xam nga Afrique fi mu toll nii moo yor lenge bi xam nga Russie bi ñu defee some Russe Afrique ci la occidentaux yi tiit. parce que bëgguñu Afrique dem ouverture vers la Russie et vers la et vers la Chine Afrique ci boppam mooy continent bu de l' avenir bi ñuy wax mooy yor ressources minières yi moo nekk une euh, un grand continent un important marché comme Afrique am nañu erreur bu mag boo xam ni defuñu les États-Unis d' Afrique pour wanoon a compter de par le monde mais toujours été en termes de marché et de consommateur Afrique ak ressources humaines de qualité am yi mu yor moom la ñëpp soxla ku ñëpp soxla nag am na taxawaay boo war a taxaw Afrique dafa waroon a toog tey jii xam nga ñu ngi jéem a def embargo Union soviétique mais ñun bu ñu neexee duñ ko duñu embargo Union soviétique ñun on va dire à l'Union soviétique lu mu mën a jël nañu ko jox lu ñu mën a jox nañ ko ko jox xam nga bu ñu neexee ñu taxaw ne bokkuñu ci yéen seen yooyu ñu parce que ñun bokkuñu OTAN ñun on est libre de commercer avec qui nous voulons et bien la position bi nga xam ne bi la Afrique jël na ko bañ a dugg ci conflit bi dox ci diggante bi duñ yàq suñu diggante ak Union soviétique duñ yàq suñu diggante ak Chine duñ yàq suñu diggante ak aucun marché émetteur position boobu nag boo ci taxawee gis nga bis bu ñu demoon taxaw ne gis nga l'Afrique vous impose de faire tel bu boobaa ngay xam continent africain ñoom xeebuñu ñu de. mais est-ce que ñun ñoo xeeb suñu bopp. mais est-ce que euh, chef d'État africain ko nii nga ko gëmee. gis nga chef d'État africain dafa am lu ñu war a régler définitivement. mooy lan mooy gis nga gën a un président la république bu collé wu ci peuple am. waaw aucune puissance étrangère mënul ci moom dara te li ñu war a comprendre mooy les puissances étrangères amuñu xarit. ay intérêt la ñu xam moo tax ñuy def seen plan A seen ay plan B foo demee ba ñu wóor ne sa sa population lâché na la ñu lâché la pour préserver seen ay intérêt loolu soo ko xamee koleel ci sa peuple bi la def président la république moom mi nga xam ne li moom ngay servir nga toog déglu ko di def di waxtaan ak moom di ko supporter wala même bu méttee pour ñu passer étape yi ak nga toog di wax ak moom boo waxee ak moom ci ngay am possibilité am socle bu dëgër am taxawaay bu dëgër pour préserver sa sa sa ak sa kàddu di jëpp parce que ñëpp lay respecté. waaw mais euh, président euh, Union africaine euh, dafa wax Poutine kane euh, ko lii nga xam ne moo xew seen diggante ak euh, Ukraine. pays africains yi ñoom ñoo ngi ci loru bu baax a baax pour nga bàyyiwaale leen xel kàddu googu. xam nga kàddu googu kàddu dëgg la mais waruñoo yem ci kàddu gi xam nga lañ lañ war a def nii tubaab yi commencé maintenant di jéem a dagg seen dépendance. ci Union soviétique ci ressource agricole ci ressource gaz ak ay pétrole Afrique dafa war a wax ne man mii fii laa war a commencer préparer wu pour que sama consommation ak sama production ma di ko def fii ci biir Afrique ba nga xam ne bi dépendance bi ma nekk ni nga xam ne bi lépp lu may lekk dama koy importer non dama ne dama ne africain yi bëgguñu ko non taxal ma tuuti da nga naan africain yi bëgguñu ko c'est que njiitu Afrique yi ñoom ñoo nangu loolu africain yi bëgguñu loolu. non njiitul ah. njiit non chef d' état africain yi. chef d' état yi ñoom ñoo bëggul indépendance alimentaire wala am autonomie mais Sénégal yi peuple euh, Sénégal yi wala Malien yi wala euh, Ivoirien yi ñoom bëgg nañu am indépendance boobu. mais loolu tax ma corriger la. parce que da nga ne africains yi bëgguñu ko man la si africains yi bëgg nañ ko mais chef d'état yi seen bopp ñoo war a am ay africains loolu lañ bëgg waaw waaw déet ni nga waxee la man la africains yi ñoom li ñu bëgg mooy seen xam nga autosuffisance alimentaire. Ouais. question de dignité la et de souveraineté nationale bind naa ko ci benn contribution bu ma adressé woon au président de la république tant que amoo sa autosuffisance alimentaire. amoo dignité amoo souveraineté li ngay lekk boo koy jëggaani bu ñu ko tëjee nga étouffé te yàlla suñ borom bi muy créer Sénégal di créer àddina bi ku ci nekk place ba mu la teg teguñu Sénégal nañu ne nañu dem leen lekk ji Inde mbaa ngeen dem ek lekk ji Union soviétique dañoo teg fii nañu defal naa leen lépp ci biir suuf si exploité leen ko ngeen transformé ko ngeen dund ko bu ngeen ci dundee li ngeen di dund li ci des na ngeen exporté ko ah, defal ndànk defal ndànk loolu mooy liñ ñu erreur bi nga xam ne bile suñu président africain yi def nañ ko mooy bu ñu dikkee defuñu un la maîtrise de l'eau nga maîtrise ndox mi moo tax ma demoon ci sëñ Muntaxa ne ko na woo président Macky Sall pour que ñu jëli Lac de Guiers te loolu la sëñ bi répété waat bu ko defee nga jël ndox mi maîtriser sa agriculture commencé di am ay matière premières diversifiées nga def industrialisation di régler sa consommation régler sa transport régler sa assurance régler sa banque de développement boo paree la nga lekk ba mu des moom ngay jëndi ko exporter mais malheureusement Afrique dafa dem di produire di jël ay ressources minières am di ko jox nit ñi ñu koy transformer di ko indil di ko jaay ci prix bu mag. loolu. échec de tous les dirigeants africains. même Macky ñëpp ñëpp tàmbaleel ca Senghor ba léegi ñi jàng tubaab nga permettre ma wax benn affaire ñi jàng tubaab ci jàng tubaab ñoom ñoo géré Afrique Sénégal depuis les années d'indépendance ca amul benn secteur de l'économie boo mën a wax ne réunir ko kon ñoom dañoo échoué moo tax ma def benn sortie bindu ko ne gis ngeen suñu mbokk yi nga xam dañoo jóge ci daara yi. bañ jógee ci daar yi ñu ñëw am xam-xam amub yar mën a liggéey ñoom ñoo ñëw ñoo téye économie Sénégal ñoom ñoo ñëw dugg Dakar yor ay survêtement di ko jaay ba yàgg nga fekk leen ñu toog di jaay taabal ba yàgg ñu jógee ci taabal ba dem ci boutique ba ba yàgg nga jóg leen ñu def industrie développement économique déglu rek déglu développement économique réew mi ngi noonu xam nga lan lañ leen écarté à portée de la langue gis nga lakk tubaab yorut réew langue tubaab langue la comme ni ko arabe nekkee comme ni ko russe nekkee comme ni ko chinois nekkee Sénégal rek nga fi gis ak France ñun ñu bokk ci espace francophone bi ñooy dem ci conférence internationale yi bu demee foofu ñu ñu ñu ñu gis ñeneen ñi di làkk seeni langue ñun ñu bëgg dem wuti science ak savoir ci langue ci langue jàmbur foofu da nga may permettre ma dugg ci langue nationale parce que danoo war a dem am langue nationale. ci nga mën a dem à la conquête de la science ci li nga nàmp moo gën a yomb nga dem ko di ko def ci làmmiñu keneen boo xam ne bii nàmpuloo ko kon développement langue national ak utiliser suñu mbokk daara yi nga xam ñoom ñoo réussir nga boole leen ci ni ñuy le les politiques économiques du Sénégal parce que ñoom danoo réussir foo jaar dañu fa réussir commerce transport yépp li nga wax ni sànq euh, langue jàmbur euh, dem di ko jëggaani xam nga loolu dafa bokk ci consommer local maanaam consommer sa langue euh, bi nga xam mais ñun dañu gis ne suñu chef d'État yi ak euh, suñu njiit yi ñoom dañuy dem ba bitim réew di fa jéggaane sax ay kàllaama di ko indi fii comme par exemple ay ay ay fast track ay ay ay training day ay training day comme comme seen. Euh, mooy li ma la wax dama laa wax benn affaire boo xam bi moom moo résumé si wax bi yépp kenn mënta dem di wuti xam-xam science ci làmmiñu jàmbur ñun ñu ko def ba réussir sax ñooñu ay génie lañu. parce que normalement waruñu woon a réussir mais réussir na ki réussir ci làmmiñu jàmbur am ci xam-xam am ci agrégation am ci ay doctorat est-ce que bu ko jàngoon ci làmmiñ wi mu nàmp kon xam nga ni génie lay doon mooy man tubaab yële ah. foofu laa waxee ne langue bi ci boppam lañu war a régler dugal ko ci biir école yi di ko jëfandikoo parce que bu ñu génnee sax di dem ci conférence internationale mais conférence internationale chinois yi bu ñu fa ñëwee xanaa lañuy lakk ñu def koy traducteur ñëpp dégg ko alors ñun ñu dikk di lakk tubaab waa mais monsieur le ministre euh, ki nga xam ne tey moom mooy euh, njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall moom dem na sa euh, sa fi nga xam ne mooy Russie mën nañ koo tuddee di fa def njàmbat wala jooytu lu jëm ci wàllum Afrique bi nga xamante ni fi mu nii victim la ci guerre bi tey est-ce que jotul ñu am lu ñu si jàngee maanaam comme li nga doon wax sànq ni euh, moom suñu bopp ci li nga xam ne moom la ñuy dundee ndax fi ñu toll nii rek ñun am nañu fi ay Sonacos ak yooyu mais gis nga diwlin gi ni mu seere te gerte gi ñuy bay si réew mi dafa bëri waaye chinois dañ koy dem defari ko diw indilaatul ñu ko suñ géej gi tamit gis nga dañuy napp jën yóbbu ko indilaatul ñu ko même li nga xamante ni mooy meew dañ koy jëggaani li ñuy fajoo sax euh, dañ koy jëggaani léegi nan la ñuy def ba mën a am euh, autonomie si suukar si euh, si ceeb bi ci diwlin gi euh, ci li ñuy fajoo. xam nga lii ngay wax ni ay questions économiques moom ngay posé te débat yu mel nii dafa am importance la première chose bi ma ma permettre ma ci Union africaine bii Macky Sall dem gis nga bi ñu demee ba président Macky Sall nekk le président de l'Union africaine. les intellectuels sénégalais et les citoyens sénégalais waroon nañoo def benn bloc autour du président Macky Sall parce que cër bi du cëru président Macky cëru Sénégal yow boo nekkoon président la République du Sénégal tey jii yow yaa koy nekk moom comme da koo def ci turu Sénégal drapeau Sénégal la porté pour fexe ba Afrique ñu diriger ko ba ñu xam ne changé na bi Sénégal jiitoo ñëpp waroon a ànd ak moom def ci réflexion pour que mu pousser l'Afrique au changement aller lu l'Union africaine ñu am kàddu kooku donc jàppale tous les sénégalais pour li des ci mandat bi ku ci am xam-xam am foo ko mën a jàppalee demal ci moom nga fructifier digal ko ne ko lii laa lay jàppalee defal lii mais bu ko kenn seetaan bu ko kenn utiliser pour di ko jëm a yàq parce lu ñëpp bokk la ceci étant li ñu jëm ci affaire li nga wax nii gis nga Sénégal ak pays yi nekk fi yëpp mun noo defar sax puso puso bu ndaw bi ñuy ñëwee duñ ko produire c'est un drame mm-hmm. ca léegi am nañu tout ce qu'il pour am machine yi ñu war a am pour transformer suñu produit yi ñuy def léegi Sénégal xam nga bu ñu bëggee dem te tant que defuñu ko du ñu dem mooy benn nañu jël comme doctrine de développement la doctrine mu de Khadimou Rassoul l'investissement humain mouride Sëñ Tuubaa daf ñoo won ne liggéey ñàkk jariñu ca murid yi di ko jëf murid yi ñoo nekk ñoo xam ni puissance économique ak levier bi Sëriñ tubaat teg ci la ñuy taxaw bay def loo xam ne ab état defu ko donc au lieu ñuy dem di jëli simis ay Ricardo nga xam ne ay économistes yu nekk Afrique du Sud nekk ci monde ba nan jël Serigne Touba. kon yow da nga yaakaaroon ne tey bu ñu laajoon euh, donga daara yeeg euh, ñiy marchand ambulant yeeg yooyu laaj leen ne leen nan la ñuy def ba mën a moom suñu bopp euh, ci mbay mi ci ci suukar ci ci diwlin gi ci ni ñuy fajoo mën nañu am. solution ba gisee Serigne Touba ne la tey. xam naa man ay ñu jóge ci ay daara yoo xam ne tey jii boo leen joxoon économie réew mi léegi commerce réew mi ñu développé ko. boo leen joxoon agriculture bi léegi ñu développé. mais lan problème mu diwlin léegi amul xam nga xam nga problème mu diwlin mooy su fekkee ni ñun d' abord bu ñu bëggee am la màcc xam nga dawlin matière première moo koy defar muy gerte. waaw gerte soo ci bëggee am def ci usine boo xam ni day transformer diwlin ji di ko defar te nga xam ne bi la du manqué. Mhm. demal nga jël maîtriser ndox d' abord xëcc la de guerre bi nga ñëw ngay def benn agriculture boo xam bi du dépendre ci euh, taw bi. mu nekk ndox mu duus mhm. buy ñëw nga xam ne da ngay bay toute diversifier say culture boo ko diversifier ba pare. xam nga Sonacos bi ñu koy créer gerte dong taxu koo jóg. oléagineux lañu wax. mooy lépp loo xam ne mën nga koo transformer. Sonacos donc waroon na dem gis nga lay firi firi ay dëkk ay soxla soo ko defal naa yéen gis yi ñu ne ay darkase. ak ay produits yi ngay gis fii yëpp yëpp yëpp yëpp ñu di ko bay. Mm-hmm. ci activité Sonacos la bokk. moom moo ñëw rek dem taxaw di wax gerte gerte gerte ñoom xamuñu sax société bi ñu créer ak mission bu ñu ko defoon danañ commencé di valoriser ay produits ba pare gerte gi ñuy béy yépp dana ñëw bu dikkee ñu seet ci Sénégal ñaata la solo ci consommation dëwlin ñu produire ko consommer ca li ñuy consommer ba pare jël la ëpp ñu dem jaayi ko pour indi ay devises ci biir Sénégal loolu lañ tuddee exportation États-Unis boo fa demee blé xam nga États-Unis boo demee Texas. foo xool ay blé la. am na benn journaliste anglais bu fa demoon xool étendue blé yi mu bare bare mu jaxaw daan neen waaw lii ngeen bay yépp ci blé fu ngeen ko jëmee xam lu ko américains wax. Hmm. ñun buñ bañ ciy lekk jëfandikoo ci liñ ci war a jëfandikoo pour suñu marché intérieur la ci ëpp moom la ñuy jël pour jaay leen ko ngeen lekk ko. loolu moom lañ tuddee loolu lañ tuddee ba pare soog a export ñun nag dañuy defar suñ xam chinois yi ñoo ñëpp lu ñuy bay ci gerte. ñun dañuy defar suñ gerte. chinois yi seen gerte ñoom. jël suñ gerte gën jënd ci ñoom dem transformé ko ñëw dina ko jaayaat. Ah, noonu la ñuy def chocolat bi ah. noonu la ñuy def fépp. ma ne géej gi mhm. itam. géej gi. géej itam boo buggee développer pêche benn da ngay équiper say marin ñu am ay battu yoo xam ne ay bateau yoo xam ne mën nañoo dem bu jëli jën yi fa nu nekk di jël les bonnes espèces di ko indi nga def ay industrie de transformation des poissons. parce que fii ay ton ay kay lépp la gars yi di importer ay canettes ak yëpp ñu ko importer dama la ni boo deful industrialisation sama wax ak yow xam nga industrialisation laa déparé ak yow. Mhm. ba ma lay wax naan defaroo puso. Mhm. ne la da ngay jël boo bayee. Mhm. am matière première matière première boobu moom la usine moom la usine yi di consommer soo amul mbay soo defee usine du am matière première. matière ba mu transformé première chose maîtriser ndox diversifier culture yi matière première yi ci génn yëpp yóbbu ko ci usines yi pour ñu transformer ko desservir marché bi créer emploi nga def sa consomation nga nekk vers le circuit d' exportation maintenant. Ah, ah, loolu laa la expliqué ne la tant que Afrique. développé wul industrialisation développé wul agriculture am du dem. mais est-ce que ñaar yooyu lajuñu si. waaye yow xanaa yow xanaa yow répétition nga bëgg ko ko def man mi la ne ba namee indépendance ba léegi tubaab yi ñu jàng tubaab ñooy gérer Sénégal di gérer Afrique danoo danoo échoué fépp. nañ jël sa mbokk daara yi indi leen ñu liggéey def. d'accord léegi industrialisation def si kanam. non léegi monsieur le ministre. dafa am tamit loo xam ne ñun war nañ see am autonomie euh, ndax fan yi moo nekkoon bis bi ñu jagleeloon wàllum meew ci àdduna bi te ñun Sénégal Sénégal plus de 60 milliards dañ koy jëggaani meew at mu jot te ñun gis nañ suñu espace bi ba léegi problème boobu aussi euh, ndax jàpp nga ne Sénégal mënoon na si am solution. xam nga solution bi ngay am ci affaire élevage moi je suis boo xam ne damay def ay recherche du ma lu ma xamul. lu ma la wax rek boo ko gëstoo kenn du ko dindi ca buñ ko defee mu dem xam nga li ngay jël benn sàmmkat mu jóge Fuuta dem ba Sine da nga leen a war a sédentariser defal leen ay espace yoo xam ni seen i troupeau dañ fay mën a lekk c'est possible dans le monde ça se fait te loolu il faut nga am ndox am les bonnes fournitures nga def ko pour que léegi yi nekk Matam maatam la ñuy amee les les les yi ñu leen defal pour que ñu di ci dund ñi nga xam ne ba ñoo leen di jox meew mi ñuy dem di ko fi jëlee loolu la def man waxtaan naa ki nga xam ne bi moo ëpp lu muy importé meew fii ci Sénégal man ko foo jëlee sa meew mi lay dem gis nga bu demee Hollande mu ne ma xoola waa ji koy jox meew mi mu indi fii ca moom ay milliards lay def xoola kooku lu mat ay 60 70 nag la yor man ko yow ñaata nag yor mënoo ma mi ngi 200 nag yu nekk fii biir Sénégal di dox fii ñuy jaay ci boucher yi di rey fii yeneen yi ndew fii di jóge Fuuta di dem ba Sine mais loolu moo dul yoon da nga war a defar seet les espèces qu'il faut yu mën a joxe meew nga teg leen ci benn place ñu fay nekk après nga indi les industries toujours on va vers l' industrie de transformation parce que pour ratt nag defar nag il faut élevage il faut li koy rat il faut li koy defal il faut nga am ay unité industrielle yoo xam ne ñoom ñoo mën a extraire meew mi ba pare transformer ko dugal ko ci marché intérieur bi ak marché extérieur bi li ñuy indi ci ay canettes ci réew mi fii di ko indi ci lait lait en poudre yi yëpp dañ koy importer te man nañ koo def ci biir Sénégal il faut nag accepte le développement il faut que ñu accepter de créer les conditions du développement. d'accord waaw léegi jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Thierno Lo mbokk yi moom la ñu invité euh, ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM moom mooy njiitul alliance pour la paix et le développement APD mais monsieur le Wade. beneen bi tamit nga bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar mouvance présidentielle. mais lii nii da ko musul wax euh, bi nga nekk ministre Ablaye Wade wala da nga ko doon wax dégguñu la wala tamit ba léegi nii yaa ngi ciy bind ndax tamit kàddu yi ngay wax nii ndax yaa ngi ko yeggale président Macky Sall. xam nga yéen erreur bi ngeen di def di réeral Sénégalais yi xam nga bu ngeen waxee ministre xam nga ministre lan la. président de la république moo ñëw defe programme am ne Sénégalais yi man lii laa bëgg joxe réew mi ñu ne ko fal nañ bi ñu ko falee mu jël un ministre bu jëlee ministre xam nga lu mu koy wax man lii mooy sama politique agricole defal ma ko. ministre bi bu ko jalgatee mbaa mu def fa leneen lu mu far def ñu sepp ko teg ko fi keneen parce que président bi la mu bëgg fa ngay jaar. donc ministre bi defal nànk defal nànk damay posé ay principe ba mu leer nañ ministre amul droit. def loo xam ne nekkul ci lettre de mission bi nga xam ne bi ki ñu fal moom la ko dénk mais waxuma le ministre mais citoyen rek boo gisee luy defar réew war nga ko mën a wax cib rajo war nga koo mën a bind war nga koo mën a yónnee borom réew mi depuis ba ma nekkee ak le président Abdoulaye Wade da ngeen ma mas a gis may def gis nga lii ngay wax nii lii ñuy wax nii ci affaire defar ndox meeg industrialisation ak affaire yooyu yëpp lettre ouverte ak lettre note à l'interne def naa ko président lay Wade ñu ñëw ma bindaat ko président Macky Sall boo duggee ci internet bi yow boo demee na nga dugg nga bind Thierno Lo lettre ouverte au président la République gis nga li ma la wax nii lépp ma nga ca beneen bi des bi madame Mimi Touré di def pré déclaration de politique générale am ca laa ko jëkk adressé benn lettre ne ko déclaration de politique générale yi ngeen di def c'est les mêmes déclarations ca jusqu'à présent da ngeen di marqué da ngeen mel ni kuy dëgg ci kuy kuy fecc ci ci ci sunguf mbaa ci sëmul da ngeen di dugg di génn dugg di génn mais leen fenn parce que fii ngeen war a jaar boo duggee nga bind lettre ouverte de Thierno Lo au premier ministre à la première ministre may Mimi Touré de politique général man dama lay jox ay preuve ak ay firnde ma nga ca ma nga ca président ma nga ca président Macky Sall boo buggee sax man danaa ko tiire nii yónnee ko yow ci sa site internet déglul donc maa ngi koy wax lii ma la wax ci problème ndox mi maa fi départ fii dem ba Touba dem seeti sëñ Mountakha gars yi bu ñu demee seeti sëñ Mountakha lañ fay wax sëñ bi boole président Macky Sall sëñ bi dafa li man ma taal sama oto fii dem ba Touba. ñaari affaire la journaliste yëpp a ngi toog mi ngi ci site internet bi ma di ko ko sëñ bi day ñaara ma fi indi yaa fi nekkal sëñ Touba ca itam benn affaire am na sa taalibe yi ñu ngi nekk ndakaar yooyu ay carton di wër di dox fexeel nga def leen woo sa taalibe président Macky Sall ne ko yéen ñaar ngeen ànd nga boole doole Serigne Touba ji ak moom moyen yi ñu am ngeen dem jëli lac de guerre bi mu traversé territoire bi yëpp ba ak si Touba sa taalibe yi dinañ génn parce que ndox mu neex am na ñu dem bayi buñ bayee transport assurance industrie yëpp dana développé wu parce que loolu moo mën a yóbbu réew mi kanam te loolu Sëñ tubaa may na la doole ji pour nga nga def ko mu ñëw bind président Macky sal bi ma bi sëñ bi defee vidéo bi ne man de bu dul woon lii ma song Lac de Guiers bee moo doon sama projet dama ne alhamdulilah parce que ba ma ko waxee dama ne Thierno li nga wax ni dégg nañ beneen ba ca des dama ne koon bul seetaan ba nit ñi xeex ba bakkan wadd ci biir dëkk bi ngay soog a woo yi. woo leen ñu ñëw nga dànkaafu leen ñu mu leer nañ képp ko ci jalgate li nga waxoon fii ñoo xam ne moom mi moo taal dëkk bi ñaar ñooñu moom fu yóbbu woon ma wax ko avant loolu jëkk naa defaat beneen vidéo parce que agriculture boo ko bëggee développer sa secteur privé développé wu da nga leen di wutal benn banque de développement tubaab yi nekk fii seen banque yi ñu fi bàyyi seen ay intérêt personnel ak ay seeni société la ñuy jàppale marocains yi nekk fii seeni société la jàppale ma ni sëñ Touba dafa am compte Xaadimu Rasuul Touba ca kanam am compte Xaadimu Rasuul tarixa ya kër yi nga xam ne kër yi diine lañ nekk fi dañoo yor seen xaalis bu nu denc ma ni hé comme sëñ bi du lekk riba ñii duñu lekk riba sëñ Tuubaa bëggul riba nan leen jël xaalis boobu def ko ci benn banque islamique de développement parce que am nañ ay taalibe yu jàng banque islamique de développement ñu dugal fa xaalis bi riba du ca génn jëm ci sëñ bi ca taalibe yi dañ ci liggéey ñu financé développement économique bu Sénégal wante wax boobu ba ma ko waxee ñu bari duñ ma duñ ma duñ ma feelu parce que xam naa duñ ma feelu bu ñu ko defee rek banque tubaab yi nekk fi dinañ tëj te comme gars yi seen àddina bi yëpp ci tubaab yi lañ ko wékk bu ñuy wut poste à l'international tubaab yi la ñuy euh, leen di jël problème bi ko yóbbu ci ay toujours ki jiite réew mi ki dem ki jiite réew da may déglu ki jiite réew mi intérêt Sénégal la fi nekkee dama damay déglu damay déglu damay déglu damay déglu damay déglu loolu ay waxu ñu xamul nu mu demee la ak ku mu neex nga wax li la neex Sénégal réew mi liberté lañ nekk mais ki jiite réew mi dama bëgg Sénégal yi dugal seen bopp benn affaire gis nga ki jiite réew mi seen ndaw la ñoo ko tànn di ko liggéeyloo li muy yor ñoo ko moom bu ñu ko joxee benn délai ne ko yow fal na la ba période bii defal ñu lii defu ko bu dikkee ñu dindi ko teg fa keneen mais bu ñu toog li ñu war a jël ñoom en tant que citoyen pour développer est-ce que xamalee commerçants sénégalais qui la su fekkoon dañoo tey dañoo toog tey dajale seen xaalis ne ñun dañuy créer benn banque de développement ak xaadimu rasul bu ñu bëggee jël xaalisu xaadimu rasul bi fi ne nii ne dañ ci ubbi benn banque de est ce que président bi la tàggu duñ ko def am na critères yooyu jaar pour BCEAO wu jox la agrément nga daal ubbi benn banque comme ni ko marocain yi def si actionnaire yi di ko fi def kon buñ ko deful mais dépendrul ci moom parce que moom amul droit naan xaalisu xaadimu def leen ko nii ak xaalisu Touba Ca Kanam def leen ko nii ak commerçant ñooy jël seen ay affaire dem jaar fii marocain di jaar ak yëpp créer benn banque de développement mu yor économie Sénégal. d'accord léegi léegi monsieur ministre kon fii fii nga xamante ni tey moom la Macky Sall di dox ba léegi yoon wii mu jaar nii du yoon wu baax wi. Macky Sall fi mu jaar am na lu baax am na lu bon mag Sall fi mu jaar. yaa ngi nii toog sama kanam déglu ma déglu ma jëlal n'importe quel comportement de l'économie du Sénégal nañu waxante suñu ak suñu aqulaay taala ak digganteeg suñu borom Macky Sall def na fa lu ñëpp gis lu ñëpp ràññee muy transport di aménagement hydro agricole yi di hôpitaux yi di train bi ak mobilité urbaine bi terre bi ak affaire yëpp man dama fi nekk sax dikku lim xam nga lim bi amul solo xam nga lan lan moo am solo. Mhm. nga ne nit ki terre bii ñu lay defal lii la la war a mën a jariñ xamatoo nga ne ko léegi daawoo xëy di ndekkee sa kër di dem sa bureau léegi da ngay xëy ndekkee sa bureau arrêté sa oto dugg ci teer bi déglu dugg ci teer bi dem liggéey nit ki moo la gën a xam ne terre bi existé na. d'accord mais la la la mu koy jariñ nga koy wax. stade bi stade bi xam nga doo bi stade bi. non non non non bu ma ko waxul fu émission bi fay ah. ñi nga xam ne bi leen football rek li ñuy liggéey. waaw bëggoon nañ fu ñu footballee defal na leen ko. déglu hôtel Abdou Diouf bi ngeen xam ne yéen xamul leen tax ñu def ko est ce que xam nga internationale yi ñuy def ci bitim réew soo amul hôtel yu mel ni Abdou Diouf ak Méridien président doo ko organiser tey mën nañoo organiser toute conférence internationale kon ñoo ngi jaay destination Sénégal bourse familiale bourse familiale 43 milliards yi Macky Sall joxe nii yow def nga ni borom kër bu toog ñu indil la 80 80 80 80 mille francs def nga ne loolu baaxul yokkal la diwlin defal gi def loo xam ne war nañ cee non may ma rek ministre ma wax <laughs> bu la joxee bourse familiale tamit yokkal na la lépp lu jëm ci dund gi yow fii sax non non xam rek yow fii sànq yow fii waaw non même FMI nee nañ sax dañ see laj bala maa bëgg de ngeen wax FMI man may déglu maire bii nga xam ne bi la mës a téye 80 000 francs dugg ci banque di jël ticket man kooku lay déglu déglu ma FMI waaw d'accord non ma wax FMI mooy lan yéen FMI da war a fexe sax ñun ban génn ne FMI tàgg na leen FMI neen def nga ay jéego yéen critère Sénégal yéen a fexe bañ koy mesurer ci ay notation ay FMI parce que tant que jógu leen FMI di leen lebal day am puissance yi yéen d'accord léegi président euh, monsieur le ministre euh, sànq mhm. yow da nga wax ne réew pour mu développer mhm. il faut nga moom sa bopp ci li ngay dundee boo moomul sa bopp ci li ngay dundee da ngaa échec te yow man yaa ma gën a. non yëpp ci d'accord. kon kay mooy Macky Sall dafa échec. waaye ndax moomuñu suñu bopp ci li xam ngeen xam nga da ngaa bëgg a def émission boo xam ne bii. da koy def ci Macky Sall man Macky Sall. def def moo ko si Macky Sall de. non que man yow commencé naa ne la. bañ tàmbalee ca Senghor ba léegi ñu jàng tubaab danoo échoué nga laaj ma ne ma Macky Sall man la waaw Macky Sall ci boppam ci ñu échoué la bopp parce que mais boo jëlee li mu def secteur bu nekk ma nga fay jéem di fa liggéey mais le mal est profond monsieur le ministre tabaxub hôpital tabaxub hôpital yomb na defar terre yomb na defar stade yomb na xam laa yomb bu la jox ku bu ma la joxoon euh, te bu ma la jox taxaa may expliqué la rek hôpital Abdou Diouf nekkoon na fi a def léegi waaw dañ ko war na mais moom def na ko ko nekk waaw góor waaw d'accord léegi non wax nga plus de 5000 milliards ku la ko jox force di def dara xam nga tey Sénégal yi lan lañu doon xaar ñun bu ñu moomoon suñu bopp ci lu jëm ci wàllum diwlin gi wala moom sunu bopp ci lu jëm ci wàllum bu ñu bëggee faju faju wala moom sunu bopp ci wàllum meew mi wala moom suñu bopp ci wàllum mbay mi benn rek bu ñu ko si moomoon suñu bopp mën nañoo jàpp président Macky Sall def na bilan wala tey président tey uude yi ngay gis ni cordonnier yi der yi fii la ñuy jëlee der yi yóbbu ko Chine transformé ko indi jaayaat ñu ko. maa la gën xam loolu parce que man maa nekkoon ministre de l'artisanat di ko xeex ak de de l'hôtellerie ma koy xeex dindi naa ci lu bari ca doomee ca artisan dañ xam man defal naa leen ay fonds fii defal leen ay formation kii conférence sur la ferronnerie pour que ñu cee defal leen ay truc artisanat pour que ñu mën a génn fii di dem di exporter yi prix yi ñuy def ma toog fi di réduire seen délai de fabrication yi ñuy def bu ñuy defar benn salon ma leen koy réduire loo pour que ñuy mën a exporter ay conteneurs de 40 pieds ba yóbbu leen fi Dubaï donc jëlaat leen fi yóbbu leen Atlanta ñu dem fa ak li ñuy ñëw fi ñoom Sadia Gueye ñu def fa benn défilé de modd ma yóbbu Pape Diop Pape Diouf mi Atlanta pour jaay le Sénégal kon maa la gën a xam ne ñii war ngeen leen jàppale pour que ñu jéem a dem muy problème fondamental bi nga xam ne moom ngeen war a aborder bàyyi leen di wax Macky Sall xaalis bi mu yor suñu kii la def na ci lii effectivement xaalis bi yéen ko moom assemblée nationale moo ko voté mais lim ci def am na njariñ ci ré dafa naa ma bàyyi ma bi nga doon wax dama la déglu dama la déglu ko xam nga bi nga wax da nga ko doon déglu dama waaye da nga may déglu bi nga la xam nga léegi da nga dama ne Macky Sall bi muy toogee mi ngi defar li muy defar yëpp baax na ci réew mi. xam ngeen fan la débat bi mën a nekk. wax ci benn rek bu ñu moom suñu bopp de. déglu benn rek bu ñu moom suñu lenn lu ñu am autonomie Sénégal ñun li ñuy dundee nee ma lenn benn matière. bu ñu dund bi fa laa jëm. waaw da ngaa wax suñu xaalis bi teer bi ak ay man la defe na Macky jël na seen budget. waaw. def na ci ay ay route waaw xam nga route moom réew mu amul route du dox parce que colon yi bi ñu la bëggee coloniser xam la ñoon def ah. dañ doon defar ay piste ak ay route yoo xam ne dañ doon ñëw pour di jël sa matière première yi di ko ah. jëlee fañ koy bayee indi ko ci port bi pour yóbbu ko France donc ay yoon ah. ci la bokk muy benn déglul déglul déglul déglul Macky Sall def na PUDC pour dem yóbbu yoon yi ci dëkk yi jox courant nit ñi defar leen énergie solaire Macky Sall dem na Fuuta demal seeti ñoom sànn kante nga dem sayet dee leen yéen dugg ci biir dëkk bi bala ngeen boo demee da nga fekk ay étendu yu bëree bëree bëree bëree daf ko bay maasale ko ba mu set ndeg ko ci wetu ndox mi pour permettre nit ñi am fu nu war a béyee parce que jege nañu géej gi mën nañ cee puiser pour bay lu leen neex soo demee sàmm kante moo fa nekk man damaa dem ba visité ko ay hectares yi hectares yi hectares moo fa nekk ca nit ñi bàyyi ñu ko fi mu toll nii defal na leen ko indi na ay tracteur jox na leen ko indi fi Pape Ablaye Seck bi mu nekkee ministre de l' agriculture mi ngi nekk ambassadeur en Italie moo augmenté rendement yi nga xam ne bi la boo bayee foo daan am ay cinq ci par hectare yaa ngay am léegi ay 40 ak ay 30 mu diversifier semence yi fexe ba ceeb bi ñu koy bay Tambacounda maintenant li des mooy il faudrait que le secteur privé dugg ci biir mbay mi nit ñi gën a engagé wu ca ñu gën a maîtriser ndox mi jëlu ko fuuta bële indi ko ci biir Sénégal pour que ñëpp mën a bay. donc loolu dama la ne nit ki bu defee da ko naan def nga lii baax na wante nag léegi président kaay ñu attaqué lii. kaay ñu def lee jubbantil lii mais du ngeen toog ah, di ko wax ne ko def fi dara réussirul dara ma neex si wax ji ah. man xam naa ne yaw yaa ma gën xam ne ñun yoon wi ñu aw nii tant que amuñ suñ indépendance alimentaire ci la ñu ah, dundee waaw d'accord xam nga non non taxal auditeurs yi lay déglu dañuy jaxale ci yow parce la man maa la jëkk wax ne la amuñu industrie. waaw maa la njëkk wax ni da ngay déglu damay déglu yow da ngay def répété ma rek ngay def ba pare bëgg tourner sama yox man nee naa la maîtriser ndox mi defar agriculture bi diversifier ko def industrialisation créer ay plus-value tant que defoo ko doo dem ci développement muy benn. ma dolli la ci ne la ndox mi. muy Macky Sall mi ngi liggéey mais lu mu def ci biir réew mi rek am na ko muy jariñ ca Sénégal boo ko yoree da ngay sàmm mbër mi football bi nappkat bi ku ci nekk nga defal ko pour que mu gis boppam ci liy xew. mais bu ñu paree man ngeen a critiquer Sénégalais bu nekk am nga droit critiquer mais soo critiquer neel hey li ma critiquer. nii bu ma sañoon ni nga koy defee loolu opposition bi tax may wax parce ñoom ñoo bëgg a yor réew mi soo dikkee critiquer nga ne mbay mi Macky Sall lii mu fi def tel tel tel tel baaxul man su ma dikkee nii nii nii laa koy def déggoo ko fi moo tax réew mu amul opposition buy proposé boobu réew mu ngi ci danger xam nga ban danger lay am bu ki fi nekk neexutul ñu def dégagisme mooy mooy bouger ku fi ñëw baax na ñu teg ko fi après déw ci rëccu. jërëjëf euh, euh, monsieur le ministre Thierno Lo léegi ñu ñëw ci euh, xam naa ne dina laal tuuti li ñu doon wax njëg yu yokk yi njëg yu cher yi ndax gis non monsieur le ministre mënu seen ñàkk wax. man sama soxna di dem marché. Ah. ma am ay militants yoo xam ne ñu ngi dem. ma am ay mili xoolal damay am militant man dama am ay militants yoo xam ni xoolal te yow man démb rek laa wax ci affaire denrée yi wax ne Sénégal war nañoo toog def attention parce que président Macky Sall xam nga fi ni nii prix yi jóg na mais maa la wax ne bu guerre Ukraine bi jeexul président Macky Sall mënta continuer di téye prix yi prix yi day yokkuwaat parce que xam na yokkuwaat dafa am ay ay réalité yow yaa ko wax dès le départ maa ngi yow ñu d'accord ci mooy bu ñu produirul dara di importe li ñuy lekk waa xaaral bu yokk ko fa muy jóge du yokk fii boo teree fii mu yokk ci yenn proportion mooy da nga koy boo ko xaalis bi waroon a dem ca dispensaire ya waroon a dem ci emploi ya moom nga téye li ñuy lekk te loolu état boo mën a dem ci subvention subventionné noonu mën ta nekk il est vrai que boo yoreem réew mu metti war ngaa def ay effort pour que liy dugg ci biir ak liy faj ak liy jàngale nga def ko priorité. d'accord mais mën ta wéy boo yoree réew nag dirigeant xam nga lan ngay def boo toogee ci benn période boo xam bi metti na da ngay wax ak sa peuple wax ko dëgg. na ko état bii ma toll ba temps de tel dama lay demander nga def benn sacrifice pour que du ñu yàq yeneen projet yi nga xam amoon nañ ko kon il faut ngeen def sacrifice takk seen biir pour que ñu mën a yokk prix yi pour que dañ koy def ci 6 mois ou bien dañ koy def ci 4 mois. mais boo ko defut du dem non mais état bi moom mu sacrifier boppam ndax train de vie de l' état bu Sénégal dafa ah, cher beneen bi dafa am ay ay yoo xam ne ñun jàpp nañu ay institutions budgétaires doo ci am contradiction ak man ah, man nee naa la mënoo dikk ci citoyen nga ngay defloo sacrifice. ba pare gars yi di dawal seeni i bolide. Ah. di am ay fond noir ak affaire yooyu. gis nga ni ni ñu fi Abdoulaye Wade defoon ba mu bëggee régler problème mu euh, euh, kii bi électricité bi. Hmm. Macky Sall mi sax def na ko fi dañoo ñëw ñu sa jël suñu ministère yi ñu yoroon suñu budget lan fàq la fa nekkoon gelwal yëpp yëpp yëpp yëpp dem dugal ko ci Sénélec pour que nee nañu régler courant bi de la même manière su mettee war nañoo xoolaat les projet de l' projet boo xam ne bii amoo ci impact immédiat. Hmm. ñu jël xaalis bi. Hmm. utiliser ko ailleurs. kooku euh, euh, arbitrage la président bi di def te mi ngi def ay économie yu mel noonu daf ko war a gën a continuer di def pour que ñu ñu ñu ñu dindi li dul projet sociaux ñu dindi ko. def ko ci lii nga xam ne bi la ci ñett moom la def subvention mi def nii xam nga xaalis la boo xam ne moom la jëlee feneen. indi ko di subventionné parce que du xaalis bu doon nelaw dafa dindi ay projet la dagg indi ko def ko ci dund bi. loolu nag du dul wéy. du wéy waaw ah, mais gis nga fi mu ni nii diwlin gi euh, vingt litres bi ma ngi fi doon jar ay 17000. 20 euh, ah, mën naa dem ba 25000 non fi mu ne nii ma ngi si 28000. dina dem 32000. waaw d' accord léegi nag euh, ñu ñu ñu ñu kii ko foofu ndax élection législative bi ma ngi ñëw dund gi ma ngi gën di yokk est ce que tey du am ay conséquence néfastes ci coalition benn Bokk Yaakaar est ce que askan bu leen sanctionné ndax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund. xam nga xam nga askan moom bu meree sanction rek lay mën a def. mais am na askan boo xam ne bu mere moom day comprendre parce que am na Sénégalais yoo xam ne doo fu ñu jënd jàpp ñu xam na xam nañ Ukraine xam nañ lekk gi li muy jóge xam nañ ne du président Macky Sall boobu sañoon day jaay kilo diwlin 500 francs pour nit ñi gën a kontaan pour bàyyi ko fi kon bu ko jaayee 1000 dañuy xam ne contrainte la daf ko mënut mais na am na benn affaire boo xam benn ci bu Sénégalais boo xam ne bii xam nga ki liggéeyul nekk chômeur tëdd néegam bëgg a yeewu bëgg a dem port pour def fa manutention mu xëy amul paas bu ko yóbbu est-ce que xam ko gradaire biy jaar ci quartier am di ko defal ay voirie ak ay tali est-ce que xam buy yuuxu ci nopp yi da koy énervé mm-hmm. day mer mere Macky Sall uh-huh. xoolul lay xew ci cité ba boppam la xool bilan personnel am lay def uh-huh. donc peuple boo ko yoree foo jaar am ñu kontaanul te ñi kontaanul am nañ droit ne seen bilan individuel bi ñu ko defee gisuñu seen bopp ci li ngay def ñu wote contre yow loolu mooy démocratie. Mm-hmm. mais majorité ba seen bopp. Mm-hmm. boo leen dajalee. ñoom ñooy fal Macky Sall parce que Macky Sall loo fa gis gars yi nekk ci réseaux sociaux yi nekk di def ay vidéo di xaas di saaga di koy bu ñu demee élection mu gagné parce que li tax muy gagné mooy la ëpp ci population bi comprendre nañ li muy def ñu woteel ko c'est terminé. Mm-hmm. lu ngeen wax wax wax wax wax. bu élection jotee du ay jinne ñoo ñëw di dugal bulletins yi ci biir urne yi ay nit comme yow ñooy dem dugal ko ci mu gañe waaw mais dem di euh, maanaam euh, agent de conscience. loolu mais ba ba tey même su fekkoon loolu la sax même bu fekkoon loolu la ñoo ñoom jënduñu jinne achat de conscience yaa koy nangu xam nga ne foo demee France ak yooyu am fu nit koo xam ne day nangu fii même pauvre bi nekk fii SDF bii di jóg di wote ji du jaay ngorom. ci mais seen coalition bi tamit bu waaye euh, yokk na Sénégal est tamit yéen. yokk na feneen. waaw frustration bi am tamit ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ak alliés yi ndax tamit la gis ne APR Macky dafa ngar daajoo am na yenn alliés yu nekk yenn partie yoo xam ne ñoom euh, am nañ frustration boobu est-ce loolu du leen gën a gàllankoor euh, cohabitation am. Macky Sall gàddoowul lépp te da ngeen di xam ne coalition boo yor xam nga ay millions de personnes lañu nga am 56 yoo war a tànn mais kooku mënoo fexe ba satisfaire tout le monde. nañu leen di nangu di waxante dëgg mënta satisfaire ñëpp. mais seen leen du tolloo. seen du leen tolloo tam bu ko defee benn affaire la dem. Ah. coalition bi daal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon sookul bi nga xam ne bi ñoom ñoo àndoon ak moom ba muy wër réew mi di ko wër ca mu déparé woon ñoom muy PS di PIT di LDMPT di AFP ñoom ñëpp ñu ngi ci biir rey bañ ak ci locale yi passé tamit da leen rey bañ dee Macky Sall lu si bëree waaw kaay ma la benn affaire est-ce doo ma déglu waaw yow xam nga yow yaay yaay wax loolu mais man li ma gis mooy Macky Sall àndul ànd nawle ak allié yi xaaral am nga droit def sa point de vue parce que Sénégal loolu tax mu neex mooy ku nekk da ngay wax leen neex et puis man il faut encourager ça da leen di xas c'est ça la démocratie mais du tax dëgg gi ngeen mun ko changer. xoolal parti yi nga jël bu ñu waxee suñu akulaay taala Macky Sall moo sauvé parti yooyu yépp moo leen sauvé comme ci bàyyi woon nga dem dootul doo dugg assemblée nationale yaa ma gën a xam. ne parti yooyu ba Macky Sall di soog a toog comme ci bàyyi woon nga demal sa bopp sooy dugg assemblée itam boo fay dugg au moins ay ñaar ak benn député nga fay dugg ci plus for reste baa nga dugg fa doo xam groupe parlementaire nekk ministre parce que doo jël pouvoir bi Macky Sall leen jox ay ministère Macky Sall da leen jox ay député Macky Sall da jox ay direction ñooñu dañoo neexle parce que perte nañ pouvoir ñi mosuñoo dem élection déglu déglu rek waaye da nga may déglu rek déglu ma déedéet du ñu jiite parti ba nan jël PS boo jëlee defal ndànk defal ndànk defal ndànk boo jëlee PS Aminata Mbengue Ndiaye mi ngi nekk présidente institution sëñ Mbaye Thiam mi ngi nekk ministre euh, Wilane mm-hmm. député si ah. ñoom Cheikh Seck député ñoom moom maître Bokar kii député député mais dañoo bari ñu ñu ngi di direction yi jël nekk ci ministère yi jël fa ay jël fa xoolal ay militant PS ay militant PS lañ jël de dugal leen foofu jox leen ay métier boo demee LDMPT soo demee seen cabinet waa LD la PIT nga jël leen ay waa LD la cooc cooc ci bàyyi woon du dugg assemblée. d'accord jërëjëf jërëjëf nekk ministre dafa généreux. d'accord léegi euh, euh, monsieur le ministre yow yaay dama ñoom dama ñoom ñu dégg ma bu ah. weddi ko seet. parce que Serigne Touba ñoom ñooñu kenn ko ci defoon fii dem doo dugg assemblée. d'accord léegi euh, coalition euh, coalition Yewwi Askan Wi euh, def nañu recours pour ñu annuler liste benn Bokk Yaakaar bi ndax respecté wuñ parité ci seen suppléante bi Benno tamit def na recours pour ñu annuler liste Yewwi bi ndax dafa am ku nekk ci liste suppléante bi liste suppléante yi ak liste titulaire yi recours yooyu ak tension bi am ni lan moo ci sa jàngat. mais xam nga damay kontaan déjà ci démocratie sénégalaise bi xam nga nga déposé ñu rejeté la nga def recours am foo ko jooyloo très bien noonu la démocratie war a fonctionner te ñëpp a war a veiller pour que loolu ñu def muy am te li ci gën a neex mooy parti au pouvoir dafa déposé ñu rejeté listam opposition de déposé ñu rejeté listam mais ñoom ñëpp bi ñu rejeté seen i liste ñu bëgg a jooy fu ñu dem conseil constitutionnel donc ñoom reconnaître nañ donc que ni conseil constitutionnel moo war a arbitré foofu bi conseil constitutionnel arbitré xam nga daf leen a valider seen i liste ci département yi dàq seen i ci biir ndakaaru waaw léegi boo nangoo sa liste ba ñu valider fële ci biti mënoo nangu sa liste bii ñu rejeté ci biir dëkk bi parce que ki koy rejeté benn nit bi la reconnaître nga ko fële ne mel ne doo ko reconnaître tal biir ndakaaru kon daal day wax dëgg fii jëbiti ca du wax dëgg ci biir ndakaaru ca élection yi boo ko bëggee gañe du ndakaaru rek moo lay jox majorité à l' assemblée nationale parce que su fekkoon ndakaaru rek leen mën nañoo wax ne waaw parce que dañoo xam ne buñ gañee ndakaaru gañee assemblée c' pas vrai sept boo fi amee sept fii doo dem walide walide walide wunu wali de wunu danoo danoo danoo danoo danoo danoo wax ne nañ corrigé ci affaire parrainage yeeg. direction générale des élections waaye direction générale des élections am na yu mu am na yu mu moo tax recours yi am bu validé woon liste yëpp mais recours doom mais moom moo invalidé ay liste gars yi dem fa mbaxana nekk benn pour que ñu àtte foofu lay nekk loolu démocratie la c'est bien que bu ñu rejeté toogul na di xeex ci mbedd mi di impôt dañu leen dem te conseil constitutionnel loolu dañu war a encouragé moom la ñëpp di déglu te décision bu mu jox ñëpp dañ ko war a nangu parce que conseil constitutionnel bii li tax mu am doole ci ñëpp war ko nangu loo fi dégg gars yi ŋàññi ko ŋàññi ko ŋàññi ko bu ñu ci élection présidentielle bii ñu jëm yàlla nañ ko fekkee jàmm képp ku jël sa enveloppe dem jox ko ko mun la mën ngaa bokk doo fi présenté wu élection présidentielle u Sénégal même boo fi présenté woo nga pare sénégalais yi ne tànn nañ boo ñëwul ci kanam constitutionnel bi yëkkati sa loxo waat ci kanamam doo nekk président la république du Sénégal. comme constitution moo ko arrêté donc nañu respecté institution yi nekk Sénégal. mais bennoo am na ay juristes yoo xam ne ak ñenn ci société civile bi nee nañu bennoo warta liste nationale bi warta bokk ci élection yi. loolu liberté Sénégal yi lañu Sénégal yi ñëpp lañu ñëpp ay avocat lañu ñëpp ay ingénieur agronome géex léegi nag ñu ni léegi gars yi léegi kon man ñu ñëpp wax nañu jubuwuñu léegi nag kun war a àtte mooy conseil constitutionnel waaw léegi euh, coalition Yewwi ñoom nee nañu dañuy amal manifestation euh, euh, mercredi bi nga xam ne moom la ñu jëm bennoo tamit ñoom tamit nee nañu même jour bi dañuy dañuy def li nga xam ne mooy manifestation mu mel ni tension bi xaw naa jóg loolu yàlla mu si xalaat tension waru fee am démocratie ay démocrate ñoo koy def bu nu toogee ne manifestation ku si nag da ngaa bëgg manifestation ñu ni da nga war a dem informer le préfet pour que mu mën a ñëw pour encadrer manifestation bi ngay def ka jëkk déposé ka jëkk a déposé ka jëkk a déposé ca remplir conditions yi kooko lañ war a jox place de l'obélisque keneen ki bu buggee def Sénégal du place de l'obélisque kese demal ci terrain yi nekk fii nga mobiliser boo mën mënee fexe ba nit ñi duñ dem place de l'obélisque yow la ñuy wuy si mais foofu la doole nekk lu tax nga bëgg dem ca place de l'Obélisque ñoom ñoom ñu donc wax dëgg ñoom ñu bëgg a tase foofu ay histoire lañu bëgg te ñun soxlawuñu histoire ci biir Sénégal man su ma amee sama doole man Thierno Lo mhm. nga ne place de l'Obélisque ngay dem man damay ñëw Liberté 6 gële woo fa mbooloo mépp ak journaliste yëpp boo defee sa manifestation ñu comparé man bu ma génnee nga génn ñu seet ko ëppale nit mais c'est ça la compétition démocratique il faut ñu war ko mën a defee noonu muy benn deuxièmement il faut gars yi bàyyi discours de violence yi ñuy def ci biir Sénégal xoqatal ak violence mënut a changer dara ci réew mi. mouvance présidentielle bi ñoo koy def. dama la ne ñoom ñëpp a koy def. Sonko ñoom ñoo ko tàmbali ñële commencé di leen tontu mouvance présidentielle nag man ñoom laa d'accordul ci ñuy xoqatal ak di wax affaire violence parce que xam tax yéen a wax ne borom caq du xeex ak ku yorul caq te ñun gis nañu waa opposition yi nga xam dañuy saaga sax di wax ay violence est ce xam nga Macky moo leen war a protéger. Mm-hmm. ku ci dawoon jëm ci taal bëgg caa dugg mbaa nga naan dangay xaru Macky Sall dafa wax sot la na daw leen jàppal leen ma ko sama citoyen la bu boo dee taal réew mi sax man boo taalee sama kër man kër Thierno Lo mi ànd ak Macky Sall kenn wër ta taal sa kër di ma fayool di ma fayul parce que bu ñu wàccee ñun ñëpp di taalante ay kër di tojante ay bopp xam nga loolu la opposition loolu lañ bëgg xam nga boobaa dañ naan ah yéen waa majorité présidentielle mënatu leen a yor réew mi kooku daf ñuy desservir la communauté internationale ak les citoyens dañ naan ñun bi ñu lay dénk suñu réew c'était pour que nga protéger ñu nga suturaal ñu jàmm am ci biir dëkk bi dof bi sax yaa ko war a téye bu bëggee dugg ci kenn mais benn bokk yaakaar boobu est bu baax la déglul ndax ñoom dañu woote violence benn yaa bokk yaakaar président Macky Sall moo ci mën a communiqué moo ci communiquer benn bokk yaakaar communiquer wul benn bokk yaakaar xamul lu muy def di réagir du jël initiative du dem def daal parce que benn bokk yaakaar warut toog di ñëw ci plateau xaste plateau xuloo parce que benn bokk yaakaar dafa am programme dafa jëf Macky Sall am fu mu bëgg a yóbbu réew mi man bu ma dikkee ci plateau bi man loolu laay wax teer bi laay wax di wax ci mbay mi di wax ci li ñu def yi yow boo waxee man la hee yow yaa ngi bëgg a ñëw di ma contre looy proposé waaye li may def waaxul yow loo nar a def foofu la wax bi ne. d'accord léegi waaw foofu la wax bi ne mais wax bi nekkul ci may wax ngay saaga ma fekk la ci saaga ñuy saagante. xoolal gis nga saaga opposition la arrangé. il faut que benn bokk yaakaar dem di wax programme te bàyyi leen ñuy saaga Sénégal yi xanaa bëgguñu saaga gis nga boo toogee plateau waa ji ñëw di wax lii defar emploi wu xale yi nga toog fa di saaga Macky Sall rek yow kenn du la suivre d'accord waaw monsieur le ministre euh, euh, dernière question bi ma ngi nii ndax waxtu bi jeex na parrainage bi euh, CEDEAO dañu waxoon ne nañu ko dindi nañ si amal ay ay ay ce que d'accord ci loolu man dama la ne gis nga accord accord internationaux yi bépp bu ci Sénégal signé rek daf ko war a respecter ça sert à bu fekkee ne léegi dañoo bokk ci CEDEAO di signé ay accord duñ ko respecté les organismes sous-régionaux la ñu leen di taxawal bu ko pays bu nekk dee def kon lañ lay jariñ léegi nag je ne pas un juriste pour di interpréter ak sama aqulay taala ni may waxante yow fii nii man xaw ba xam ay 6 mois dépassé woon nañ kooku affaire parce que man du jël sama kii di dem gëstu ci man ay élection yi eh, local intéressé wu fa dem di fa perdre sama temps di gëstu di xool texte yaag kot kot man yeneen ma intéressé ngi ci di ko di ko jéem a dox parce que nit mën ta xam lépp doo nekk ministre rek tax nga xam département a dem dox loolu ci am justice moo koy tranché CEDEAO nañ ko saisir génn jox ko éléments yi bu waree sanctionner le Sénégal mu sanctionné ko loolu mooy yoon. jërëjëf monsieur le maire ñu lay sant di la gërëm. waaw ah, lay gërëm parce que yi nga ma posé question yu mais bàyyi di jël lépp rek di ko teg ci bopp président Macky Sall. waaw <laughs> jërëjëf euh, monsieur le ministre Thierno moom moo jiite euh, alliance pour la paix et le développement APD euh, moo nekk président conseil d'administration bu SENTER mu bokk ci mouvance présidentielle moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h 15 jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.